Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 31 mai ginnaaw bi nga xamante ni di Dora Gay arrêté nañ ko pour escroquerie foncier digganteem ak Zakiatou Sow kii di Aziz Ndiaye di le promoteur moom daal dafa jaaxle ci Sénégal ndaxte ginnaaw loolu gis nañ daal ay photom ak photo kii nga xamante ni xaritam di Eliman Lam ñu taf partout di wax ni que dañ la woo dañ la woo nangam sangam xam la Sénégal dëkk bu neex la je crois que su dee ci lii la ñu bëgg a dund ci lii la ñu bëgg a màgg nañuy xamuñu fu jëm ndaxte nit d' abord pour que nga mën a développer sa réew da nga war a njëkk a sa esprit développer sa xel waaye doo nekk benn bàyyi ma boo xamante ne dañ lay diri nañ déglu ji Aziz Ndiaye dellu si waat lu xew Sénégal dëgg bu neex la ko ay jékki-jékki rek ñu taf sa photo fu ne nag gis naa ñu taf ma fu ne taf fa Eliman Lam di ñu tudd ci ay problème yoo xam ne ñun yëguñu fekkewuñu

vraiment daal gars yi nañ dal naatal xol yi jàmm jàmm rek a neex kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu Aziz Ndiaye nee na Sénégal dëkk bu neex la lu xew dafa jékki-jékki gis ay photom ñu koy taf dèjà muy loo xamante ni nit amu ci droit ñoom dèjà dañu bëgg indi li nga xamante ni mooy justice mais justice boobu ñu bëgg a indi ñoom injustice lañ koy tege naka nga ma gën a indee justice nga teg ko ci kaw injustice mënul nekk yow Dora Gueye moo am problème ki mu amal problème Zakiya Sow la tudd tudduwul Aziz Ndiaye tudduwul Eliban Lam yow mi toog sa kër xamoo lu géej gi diiri yow yaay tëb di naan diw si la bokk diw si la bokk diw si la bokk ki fa nekk nañ ko ñaanal yàlla jëlee ko fa ndaxte waruñu yéene benn suñu moromu doomu aadama mu nekk ci jafe-jafe kenn nag parfaitul ci àdduna ku nekk mën nga juum ku nekk mënoo échapper sa destin lépp loo xamante ni daal yaa ngi koy dund ci kaw suuf ndagam yàlla bi ñu sàkk moo ne tooñ leen ma man jéggalu ma ma leen kon yàlla xam na ni ko mënuñu wàccee ci suuf te duñu juum kon nañu ñaanal doora Gueye fu mu nekk mu génn fa ci jàmm ak salaam ba yu mel nii bu mu dalal ci dootam lu tax sénégalais soxor bay yéene beneen moromu doomu adama bi nga xam te ne mi ngi liggéey Aziz Ndiaye ci yoonam la nekk Elimane Lam ci yoonam la nekk dégguloo leen diggaatu leen mais sénégalais dafa soxora soxor ba su la gisee ngay liggéey sax da lay iñaane kon nañu rassuré wu Aziz Ndiaye rassuré na képp koo xamante ne yaa ngi koy dégg ñoom ca la ñu nekk xam nañ ko nit ku dul juum nag amul waaye li nga xamante ne moo soxal Doro Gueye yoonu Aziz Ndiaye nekku ci yoonu ma Massamba nekku ci ba ci man mii démb ay journalistes ñëw nañu jëm a investir nee nañu askan bi nee nañu est-ce que si su ñu jàpp Doro Gueye ma ne ko lu ci may sax tiit xaw ma Doro Gueye musumaa gis Doro Gueye aw ma numéro Doro Gueye musumaa wax ak Doro Gueye benn yoon laa ko mës a seen muy soirée de gala corridor mu nekk ca saal ba mu gunge woon jabaram di jël Dora géey bu def ay escroquerie ak Zakiyatul saw man lu ci sama yoon pour walla ni ko xolal sénégalais yi la façon dont il pense maanaam ci erreur lañ nekk ci njuumte ci bàkkaar ci tuumalaate te di defal nit doo xamante ni dara du ci dëgg wax dëgg yàlla yàlla wala soppi doomu aadama yii nga xamante ni xamuñu lu géej gi di riir jóg di accuser ay nit je crois que nit da nga war a yem naan noo Dora Gueye ragal nañu peut-être mu tudd mais da tudd tur koo xamante ni da koo xam Dora Gueye xaw ma ko ci A xaw ma ko ci B

Thank you.